Ousmane Sonko tontuwu ko Ousmane Sonko li mu doon wax loolu la Sénégalais yu bëri gëm te bu ñu demee ba ci urne yi incha allah dina xam ne patriote yi mën nga leen a benn moment boobu duñ ko yëg waaye ba mu xasee taxaw saaga Sonko ca la ko patriote yëpp ni ma la ma leere man ni patriote yi doon juum di ko jéem a jàppale hmm. jàpp ne daa bëgg seen leader te patriote yi mën nga leen nax ci Ousmane waaye nag Ousmane bis boo ko bëggee attaqué ci loo xam moom moo na ci dëgg nga koy saaga de xotti war ma euh, Ousmane Sonko ku xam parti de xam ne boo xottee war ma Ousmane Sonko pare nañ ci yow. jërëjëf Siré sur cette question mm-hmm. Tahirou yàgg na ko prôné usmaan Sonko ñëw ci benn temps bu gàtt discours bi moo am problème wala idée bi moo manqué discours bu koy jàllale waa les deux sax à la fois xam nga Birago Diop disait dans Souffle mm-hmm. écoute plus souvent les choses que les êtres mm-hmm. euh, Sonko a parlé de choses Tahirou Sarr a parlé de l'être Euh, lii man bu ma ko doon jàngat euh, parce que Tahirou maa ngi koy suivre depuis un bon moment euh, mais man dama ci def analyse à deux niveaux en fait. le premier niveau c' est l' analyse conceptuelle c'est-à-dire que c' est quoi le nationalisme quoi et surtout le nationalisme moom bi muy prôné. Mhm. lan lay tekki quoi à l'heure de la mondialisation globalisation bi ci des. Mhm. analyser du point de vue politique maanaam moom li mu wax nii. par rapport ak li ñuy dund ñu réalité. Ah. fii Sénégal xam nga patriotisme ak nationalisme. Mm-hmm. dañoo bokk ndey. Mm-hmm. waaye bokkuñu bàyyi. waaw mm-hmm. concept yu jege la nag. mais ñoo bokk ndey. waaye bokkuñu mais bàyyi. soo juumul soo moytuwul tuuti rek da ngay juum loolu dafa dal Tahirou. ba mu jàpp ne moom. nationalisme bi muy woote ak patriotisme bi wax Pastef di woote. ñoo bokk ndey ak baay. bokk ñu ndey ak baay fekk na yaay rek eh, bokk fekk yaay rek nañ bokk ñu baay. comprendre d' abord nu ñu bokkee très bien nu ñu bokkee yaay mooy ñoom ñaar ñëpp muy nationalisme loolu day vante l'idée de la nation et l'idée de la nation a un substrat culturel mooy la nation germanique la nation. Euh, latine et cetera. Mhm. donc religion culture croyance et cetera. d'accord patriotisme li muy gën a joxoñ ce n'est pas les valeurs c'est la géographie c'est l'État et le pays. Mhm. le patriote ce n'est pas l'ensemble de vos valeurs qui l'intéresse le plus mais dès lors que vous partagez l'espace géographique qui est déterminé comme un État ou au, au, sens juridique du terme pouvoir politique territoire et dans le patriotisme moo tax tey jii le patriotisme américain muy am jullit ñu gëm lii góor jigéen noir blanc et cetera les américains sont dans le patri Donald Trump par exemple dans le patriotisme. Mm -hmm. mais suñu patriotisme dugg ci nationalisme loolu da ngay sax génn kii bi mooy par exemple Hitler il croyait à la race aryenne à la suprématie de la race aryenne donc moo tax après muy dem di coloniser euh, yeneen dëkk yi ko war ak yooyu première chose du point de vue conceptuel mais fi ñu bokkulee bàyyi mooy mooy soo jëlee nationalisme dafa am ñaari dimension du nationalisme dafa am benn nationalisme boo xam ni dafay am looy subir jóge de l'extérieur ñëw ci yow loolu mooy générer sa nationalisme par exemple la colonisation dafa jóge ci biti ñu ñëw coloniser léegi nag dañuy def beneen nationalisme pour mën a tekkiku ci colonisation avec le principe de ce qu'on appelle l'autodétermination et on crée un mouvement politique là on est dans les sciences politiques léegi nag mu am beneen dimension du nationalisme boo xam ni la menace ne vient pas de l'extérieur mais la menace provient de l'intérieur mhm. mooy quand je suis dans les logiques de domination c'était mhm. comme Hitler ma dem ba jàpp man maa gën ñi ci des mhm. wala sama race moo gën ñi ci des maa gën ñi ci des léegi nag dama leen di beddu ko foofu nañu wutale léegi nag soo ko ramené euh, ci sunu sunu dëkk yi parce que li tax ñoom ñoom ñaar avant ma ñëw ci du dëkk bi ñu bokk yaay mooy ñoo bokk cosaan fa ñu juddoo xam nga fan nañu juddoo ci les révolution mm-hmm. bu dee en France c'est la révolution de 1789 bu dee États-Unis c'est la révolution de 1776 donc sa lan moo amoon dafa amoon ay ce qu'on appelle ay classes sociales mm-hmm. euh, c'est l'aristocratie mm-hmm. mooy buur yi c'était la bourgeoisie et l'église léegi révolte boobu amoon ba jur révolution moo jur ce qu'on appelle le nationalisme pour que léegi dootuñu réfléchir joxe avantage par rapport à la classe sociale mais dañu joxe avantage par rapport à la nation tout entière qui transcende les classes sociales d'accord bourgeoisie et cetera mm. mais fa ñu uute nag mooy dimension nationalisme avec ces deux variantes loolu na mooy ñu tax ñu dugg ci Sénégal fii le nationalisme dont par le Tahirou Sarr n'est pas une menace extérieure hmm. Sénégal nekkatu ci colonisation hmm. Sénégal am na drapeau am na hymne national am na ay frontières am ak yooyu hmm. kon donc ce n'est pas nationalisme du point de vue du principe d'autodétermination de la nation mais c'est de quel nationalisme il parle c'est le deuxième nationalisme le nationalisme à la hitlérienne c'est-à-dire que bedd ko c'est-à-dire que man ma gën ñii man maa nekk supérieur ñii et quand on est dans ce type de nationalisme, on est dans des logiques de domination ou dans des logiques dominatrices. Et beaucoup poussé au bout, c'est ce qui à la xénophobie, racisme, etc. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, déglu naa ko mu convoqué ñoom Serigne Touba et cetera d'ailleurs Serigne Touba ci mbindam moom xamul sénégalais. Mm-hmm. Serigne Touba banni aadama lay wax. Mm-hmm. d'abord d'ailleurs sax muy def amalgame bu. Mm-hmm. bu kii bi deuxièmement lan moo tax moom lu mu wax graaw mooy sociologue bu tudd docteur Fatou Sow Sarr moo lay explique lii cest a dire que Tahirou Sarr n'a pas intégré la dimension de l'histoire donc Babacar Justin Ndiaye dira tout est dans l'histoire mm-hmm. gis nga soo analyser les phénomènes tels qu'ils se présentent mm-hmm. dans leur immédiateté et leur quotidienneté sans pour nga articuler ko par rapport à l'histoire da ngay dans le panneau et c'est ça Tahirou xam nga lu tax euh, tey Fatou Sow Sarr dit dans l'un de ses livres que le Sénégal est un peuple de métissage mm-hmm. Sénégal wolof 100 pour cent amul tukuleur cent pour cent amul séeréer cent pour cent amul à partir de deuxième troisième quatrième génération da ngay gis ni séeréer bi ay maamam tukuleur nañ tukuleur bi ay maamam séréer nañ et cetera et d'ailleurs c'est tellement vrai que Tahirou Sarr n'a pas intégré la dimension de l'histoire en oubliant que nous avons été d'abord dans ce qu'on appelle l'Empire du Ghana. Le Sénégal faisait partie de l'Empire du Ghana entre le 8e et le 12e siècle. C'est quoi tey boo demee Casamance am na ay Ghanéens yoo xam ne une partie de l'année dañuy ñëw def ci foofu euh, pêche et il y a même une communauté d'origine ghanéenne sont des Sénégalais mais d'origine ghanéenne bu des Casamance si Ziguinchor Euh, jana malaari fi ma nekkoon. Mhm. Casamance am na ci benn ay euh, Malien yoo xam ni chaque année am na benn période ci fleuve bi dañuy def genre exode dañuy dañuy ñëw Casamance euh, toog fa fa la ñuy defee napp ak yooyu ça veut dire que bu Ghana yooyu yooyu mënee nekk foofu c'est parce que le Sénégal appartenait en un empire qu'on appelait l'empire du Ghana mais mieux le Sénégal a appartenu dans ce qu'on appelle l'empire du Mali et c'est là il, il fait fausse route dans l'empire du Mali te l'empire du Mali ça s'étendait Mali Sénégal ba jëm euh, Guinée côté yooyu ngay dem et cetera donc ce qui fait que n'ayant pas intégré euh, la dimension de l'histoire fait que souvent li muy stigmatisé il oublie même que yanaa pël yi muy wax moom seeni maam sax fii nañ juddoo te la loi sénégalaise dii ka droit de sol amul Sénégal c'est-à-dire nekkul li da fi juddoo rek da nga nekk sénégalais loi Sénégal dafa wax ni bu sa papa juddoo ou ou pas et ou sa yaay juddoo fi boo juddoo dañ lay da ngay am droit de sol et donc y en ci communauté bi euh, pël yi la majeure partie sont des sénégalais comme nous deuxièmement lu tax Tahirou Sarr n'a pas intégré la dimension de l'histoire gis nga affaire yu demee nii moo taaloon Côte d'Ivoire. Mm-hmm. avec Alassane Ouattara. Mm-hmm. ak Burkinabé yeeg et cetera. et d'ailleurs c'est tout à fait teg teg teg mm-hmm. mais Rwanda moom a leen tal <laughs> c'est-à-dire que lan moo tax c'est dangereux yow xamal rek li ngay wax mais buy xam le le le récepteur nan la fay <laughs> tekkee tey bi ñu demee euh, procès Côte d'Ivoire ba ci Rwanda xam nga gars yi doon wax ci rajo Mille Collines ñoom la mënoon seen ligne de défense ñun dañu analyser affaire bi mais waxuñu leen ngeen dem jëli ay armes mhm. parce que loolu moom sa discours et d'ailleurs euh, quelque part c'est bien du point de vue intellectuel mu poser ko ñu crever l'abcès bi jàll ci leneen xam nga lu tax parce que bu ñu ko creverul l'abcès bi teel ko romb lii dal Côte d'Ivoire mën nañoo dal parce que n'est pas à exclure d'ici vingt ans un Sénégalais d'origine jël wala d'origine malienne jël dëkk jël jël dëkk bi et cetera. wala nekk candidat bien et d'ailleurs si la logique de Tahirou euh, sociologie ce qu'on la théorie des centres et des périphéries c'est-à-dire que Sénégal ku santul Diop Ndiaye disons Fall da ngay dem su bokkee kon tukulër yi ngay dégg ni dañuy dem ñibbi ji Soudan ñeneen ñi jaar Égypte. ba ci ñoom Ousmane Sonko ñii dañuy dem ñibbi ci gaabu est-ce que comprendre si on suit bien sa sa sa sa sa sa euh, donc euh, fu ma bëgg a tënkee foofu mooy euh, Tahirou Sarr oublie peut-être que à l'aune de de l'histoire comme le répète si bien Babacar Justin Ndiaye le nationalisme qui a été la cause de la Première Guerre mondiale avec euh, l'assassinat du duc Ferdinand, mais aussi la Seconde Guerre mondiale avec Hitler euh, contre la traque contre les Juifs. Le nationalisme, Diegui Atlantique, New et France, Zemmour, etc. Aujourd'hui, fini ak patriotisme. Le patriotisme, on peut définir comme l'amour des siens. Mm-hmm. Quand le nationalisme, et la haine des autres. D'accord. Mhm. Le patriotisme. Ça veut dire quoi? lan mooy seen différence fondamentale le nationalisme est de type d'exclusion quand le patriotisme est de type d'inclusion et d'ailleurs c'est pour ça que ñoo bokk ndey mais bokkuñu baay parce que quand tu fais dans l'exclusion tu es dans le nationalisme dans le chauvinisme dans le racisme dans la xénophobie Mais quand tu fais dans l'inclusion, tu es dans le patriotisme en fait. Et c'est ça qui fait que conceptuellement du point de moom ñoom Ousmane réeroo am quoi. d'accord Cheikh Ousmane. waaw ci waxtu wi ko Ousmane Sonko def. Uh-huh. ak ci ni mu ko defee est-ce que amul tam lu ëmb comme gain politique boo xam ne laaxoon na ci. non en fait Ousmane dafa fëggatu xam nga jóg dara topp la nga fëggatu mu wadd